dootuñu wax di Macky Sall dañu donc salaamaaleykum gars yi ñu ngi nii assemblée nationale ah. donc combat bi commencé na dès maintenant donc xaaruñu euh, pour suba pour mën a wax ak nit ñi wala pour mën a wax ak Macky Sall parce que Macky li mu bëgg def nii du jàll. donc ñun ñëpp ñu ngi assemblée nationale gars yi partagé leen live bi maximum live bi partagé leen ko. Macky Sall bu ñu ko bàyyee ba liy jàll yi. ñoo nga xam ne Sénégal du doonu bàyyi kenn. Macky Sall doonul doonul Sénégal ci maamam. doonul ko ci papaam. Sénégal tër gi dafa dafa toog ba mu jaami kenn dootuñu noote. dee moo ñu ko gën a. gars yi partagé leen live ba maximum ñu ngi nii assemblée nationale ah. xeex bi na dèjà. na ñëpp ñëw xeex bi commencé. député bi dugg assemblée. bay allah rabbi du jàll ñu duñ ko nangu. on est là prêt à mourir ah. on est là. koo kii ah. dañ ko fal donc waruñu fi lépp lu fi tegoon lu baax rek mu ñëw salfaañe ko ñu toog di xoole instant bi réunion dafa doy jàpp a Sénégal la ñu wax pacifiquement la ñëw ñu. daj yowuñu kenn lenn mais nañu génn taxaw dire non partout au Sénégal. bu mu jàmm dañ koy dog par force. parce que moomu réew mi faut que ça soit clair. Sénégal nous appartient. donc voilà gis ngeen dañuy takk fii suñu bopp ci assemblée nationale parce que lii du jàll Macky Sall dictature la donc lii duñu ko nangu mu jàll parce que projet bu jàllee mooy bépp sénégalais na nga xam ne prisonnier nga fii Sénégal bépp sénégalais na nga xam ne amatoo dara looy wax te donc jëlatul ngay wax dara fii Sénégal parce que Macky Sall booba moom mooy moom réew mi te nag fii réew mi ñun dañu xeex ba démocratie am fi 23 juin fii la ñu taxawoon xeex ko ngir bañ ku laal suñu constitution donc tey kon du ñu nangu Macky Sall du ñu indi loi boo xamante ne nii kenn dootul am droit manifester kenn dootul am droit bu boo amee loola naqari constitution mayal na la boo amee loola naqari am nga droit nga génn nga casse say droit donc Macky Sall li mu bëgg a def bu jàllee kenn dootul am. droit day nax boppam rek. donc ñun nag. day nax boppam ñun nag. taxaw nañ temm takk fii suñu bopp ci assemblée bi duñ fi jugee tey fii la ñuy fanaan di wax sénégalais yi na ñëpp jël seen ay responsabilité génn na ñëpp jël seen ay responsabilité parce que lii mag Sall bëgg a def bu jàllee ñun ñëpp ñun ñëpp dinañu daanu ci kàmb gi te Macky Sall nag bi ñuy xeex ak moom 2011 di ko jàppale ngir Abdoulaye Wade jugee fi ñu teg ko ci réew woon pour lii dañu jàppoon ne bu dikkee dina fi teg ay loi yoo xamante ni nii teg fi ay projet yoo xamante Sénégal yëpp dañ ciy gis bopp mais pas que muy teg ay projet yoo xamante ni nii kenn am droit manifester projet yooyu bu jàllee góor jigéen dafay am doole kenn dootul am droit laal ko aussi tamit moom troisième candidature am day jaar te loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg donc ñu ngi fii nationale pour yeew suñu bopp fese li président Sonko waxee rek bu bëggee ñu denoon rek dina salir ay loxoom dina rey ay nafs yu bëri bro ma ñëw ma expliqué maa ngi assemblée nationale waa ci kanam ma ñëw ma expliqué ça dafa am solo loo xam ne foog ñu expliqué Sénégal ah, c'est bon leen ngeen libéré Sénégal jóg leen ñu dimbali Sénégal ndax ñu amuñu lu dul Sénégal toog yi conférence de presse yi doy na ñun droit de manifester dañ ko a am léegi nag bu fekkee ni être activiste égal être kon jot na ñun ñu jugal suñu bopp dès maintenant jël suñu nga ay perlager maximum laa fi assemblée nationale ñi fii assemblée nationale ñun waa nit dëgg valeur donc pour wax yi ku nekk réew bu nekk ay doom ñoo ko mën a dimbali libéré ko mm-hmm. Macky Sall li bëgg Sénégal duñ ko nangu duñ ko nangu ñu ngi nii pacifiquement ñu ngi nii yoruñu paaka yoruñu dara yoruñu dara loo xam day lore mais dañ ñëw fii taxaw pour wan opinion internationale wan ñëpp ne leen ñun nous sommes dans un pays boo xam ne dafa mus a indépendant le Sénégal est un pays boo xam ne dafa mus a am jàmm pays boo xam ne dafa mus a am démocratie fii donc loolu du Macky Sall moo ko yàq donc ñun ñu ngi fii assemblée nationale partagez maximum les live gars yi ñu ngi fii assemblée nationale fanaan fii ba suba ak jàmm yi képp ku mën a jóge sa kër ñëw leen ngeen fekk suñu fii ñun ñu ngi fi taxaw ci fulla ak fayda waaw di wax ni xoolal keroog yéen ñëpp gis keroog ba ñuy wax affaire góor jigéen yi pour voter pour criminaliser góor jigéen ba léegi ñu koy layam-layamee parce que loolu intéressé leen donc Macky Sall moom boppam rek moo ko ñor il faut que sénégalais xam ne lu ñuy bëgg lu ñuy rêvé du Macky Sall boo ñu koy defal Sénégal ay ñoom bokkunta ko bëgg jël mabal ko te loolu duñ ko nangu lu ne indi na mu ngi ko fi indi gars yi toog di fi fanaan fii isa fii la fanaan fu ma ñëw na ñëw fu ma on est prêt à benn arme ñu ngi nii kurus la ñu yàlla rek la ñu gëm suñu bopp de droit dañu nekk ci dëkk boo xam ni maanaam wax ni ma ni jot na kilifa diine kilifa aada képp koo xam ne Sénégal ñor na la nga jug ñu lijjanti Macky Sall parce que doy na ñun duñu réew fitna duñu réew musiba jàmm rek la ñuy woote fi ñu ñëw nii fii dafa nekk foo xamante ni fii institution ñëpp ko bokk ñëpp ko moom Macky moomu ko du nar a bàyyi moomu ko kenn moomu ko donc ñun li ñu bëgg rek mooy pour Sénégalais yi xam ni xam réew mi ana ngeen jóg leen ngeen ñëw fekk suñu place leen fii fii assemblée nationale ñëw leen fekk di assemblée nationale yéen ñëpp chacun est libre chacun est libre de manifester te loolu droit constitutionnel la kenn duñu ko xañ kenn nag muy jàggati constitution bi ndax pour ay ay loi yu ndaw ndaw ay petit ñett du loi yoo ay dëgg sa duñ ko accepté ñun loolu duñ ko nangu duñ ko accepté ñun suñu sénégalité kenn duñu ko xañ gis nga lu ñu yàlla tegul doomu aadama duñu ko teg Macky mm. Sall mënu suñu du jàll insha allah rabbi on est là on est prêt bu ñëpp toogee tamit ñun dañuy pare nañ ko xanaa mu rey ñu de laa gars yi ba léegi rek ñu ngi fii assemblée nationale donc pour wan pour wan askan bi rek pour wan nit ñi ne leen lii mag Sall bëgg a def du jàll te duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg boo Macky Sall bu ko bëggee def na jaar suñu kaw ñun ñëpp ñu doon ay néew mais lii duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg di wax ne nag bépp Sénégal boo xam ne jugoo yaa ngi sa biir kër toog wala nga naan loi bi du jàll loi bi dina jàll ak du jàll te jugoo nga xeex xamal ne loi bi day jàll te bu jàllee ñun ñëpp ay prisonniers la ñu doon fii Sénégal kenn dootul am droit wax kenn dootul am droit am lu la naqari nga kaas ko kenn dootul am droit sax am lu la naqari nga bind ko ci pancarte pour taalal ko pour wax ko fii nag assemblée nationale la ñoo ko moom di wax gars yi ne leen gis ngeen luwaat bu passé képp koo xamante ni nii muy opposition muy Ousmane Sonko muy euh, bépp koo xam ne yaa ngi si opposition Ousmane Sonko mooy doon la première personne bi nga xamante ni nii Macky moo tax wax ne képp ku bokk Pastef xamal ne loi Macky Sall ki muy njëkk jàpp mooy Ousmane Sonko bu paree nag dem si yeneen opposants yi ba pare 2024 du organiser élection dem ci activiste yi day ñëw si activiste yi te 2024 élection du am te élection boobu bu paree bu paree aussi day def troisième mandat parce que boobaa élection du am day toog fu ko neex parce que dafa bëgg yóbbu réew mi si kaawoo gis nañu mu jël ay nervi teg leen si réew mi kenn waxul ba loolu passé nit ñëpp di ko naqarlu léegi nag fi mu ñëw ci projet de loi mooy fexe ba trois euh, élection euh, présidentielle doo am fii Sénégal bu ko defee moom mu continuer di doon président à vie te loolu ñun Sénégalais bu ñu ko nangoo parce que lii du question de ay euh, question de politique du question dañu ànd si benn homme politique moo tax ñu ñëw fii teew du question que dañu bokk si benn parti moo tax ñu fii teew mais dañu ñëw pour cas suñu ay suñu àq ak suñu ay que suñu ay droit la ñuy menacé suñu ay droit la ñuy menacé képp koo xamante yaa ngi sa biir Sénégal nekk Sénégalais foo mën a nekk si àdduna bi mooy nga bokk APR mooy nga bokk Pastef mooy foo mën a bokk xam ne suñ droit ñu ngi koy menacé te lii bu jàllee du baax lii taxutoon euh, Cheikh Ahmadou Bamba doon xeex ba tey jii Sénégal am li mu am lii taxutoon suñu mag ñu baax ñu fi jàll yëpp Cheikh Anta Diop lu nekk wax na ko ba tey lii am nii tey tey tey Macky Sall nag bu fekkee dafa nar a ñëw moom jaxasoo ak tubaab yi jaxasoo ak franc yi na day nekk président à vie dooleel góor jigéen yi xañu suñu àq ak suñu élève loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg te dañuy taxaw xeex ko te fii lañu fanaan lañ nekk xam lu graw mooy nekk mm-hmm. dañ di xeex pour ñu criminaliser homosexualité lu nekk daj nañ ko kenn Macky Sall def ci dara faalewuñu lijjantiwu ko mm-hmm. loo xam ne volonté populaire la parce que ñëpp jug wane seen bopp manifester ñëpp gis ni ñu festere Obélisque pour wax dañu criminaliser homosexualité faalewuñu ñoom lu gaaw gaaw loi pour manifestation ñu ko criminaliser taf taf démb ak suba démb ak suba ñu bëgg ko matal mu war a jeex vite fait cest à kon ñoom volonté politique la pour seetaan ñun li nga xam ne ñun askan wi bëgguñu ko ñu imposer ñu ko ñoom génn leen ngeen ñëw fekk suñu assemblée nationale ñun ñu ngi fii fi la ñuy fanaan tey génn leen ngeen fekk suñu ñëw leen libéré Sénégal suñu kër fekk libéré wuñ Sénégal waratoo tëdd sa kaw lal l'heure est grave ils nous accusent de terroristes il faut tous nous tuer daf ñu bëgg a broyer la na Sénégal yi génn ñu ngi fii assemblée nationale Karim bul dag ngi fii assemblée nationale donc dañu ne live bi Macky ko non ci loi bi nga xam na koo jàll du jàll parce que duñu ko nangu ay sénégalais lañ si réew mi la ñu dëkk police yi ngeen di chaque sénégalais donc ay sénégalais lañ réew mi la ñu dëkk donc duñu nangu lii di jàll chaque sénégalais est libre de manifester lii du ñu nangu mu jàll. loi bi kenn amul droit ba gis filmé booy. filmé ma booy. non la.